wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri man abaat wa najjini yaa man taala yaa majiid min sharri jinnin maca shaytaanin mariid wa sharri dil qurbi wa sharri nnaa'i wal harri wal bardi wa sharri lmaa'i wa sawwidanniya wa ayyidnii abad wa tahhiril qalba wa sahhihil jasad wahab liya alqiyaama fi llayaali walsawma fi nnahaari bilikmaali wa xalliya nniya min alradaaili wa kun mujammiliya bilfadaa'ili wa zakki lubbii waftaxa rabbi liya fatxan mubiinan laa yuraa limithliya وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi fii ci lenn ci barab yi nga xam ne ni moom la commission sociale bu Touba ca kanam di wàcce xéwal yi nga xam ne moom la doon dajale ngir baaxee ko bokki taalibe yi nga xam ne yittewoo nañ ku leen taxaw waxtu nekk waaye woon nañ ku leen dimbale waxtu nekk rawatina ci weeru sel wi di weeru Ramadan social Ramadan saa bu ñu ko tuddee xel yëpp day dem ci commission sociale bu Touba ca kanam naka jekk at mi yëpp ci social la ñu yoroon rawatina ci weeru sell wi li ngeen di gis nag muy ay saaku ceeb yoo xam ne ñu ngi koy wàccee li bindoo gum ci commission sociale te mu war leen a jox kenn ku nekk saaku ceeb juróomi kiloy suukar ak tàndarma ak 3000 francs yoo paase toll na ci ñetti junniy borom kër mbokk yi ñetti yi borom kër bindoogum nañ te faw commission sociale bu Touba ca kanam dana jox kenn ku ci nekk saako ceeb juróomi kiloy suukar tàndarma ak mille francs yoo xam ne da nga koy paase paas bi képp boo ko calculer dina mat juróom-ñeenti million mbokk yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci liste d'attente bi di yaakaar waaye mbokk yi am na juróom-ñaari daaray kaamil yoo xam ne commission sociale bu Touba ca kanam mënu caa ñàkk bañ a dugal loxoom ña ngay xaar ak waa jumaa ji ak ak ak kon fi liggéey bi tollu jaadu na Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah mi nga xam ne moo jiite commission sociale bu Touba ca kanam ñu laaj ko waa sëñ bi bés bi nga xam ne ci la ñu war a séddale xewal yi de jege na de mille familles bindu nañu ndax mën nañoo wax ne xel yi dal na ndax mën nañoo wax ne yaakaar am na ci yéene ji ngeen am ci dimbale mbooloo mu toll noonu mbokk yi sëriñ Mourtala bisimilah. jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi santaat yàlla bu baax tey gën a feddali sunu jaayante Cheikh naa Cheikh Ahmadul Khadim tey ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa sunu borom gën a yokk aw fanam te defal ko wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi yëpp mu àggale ko ci sagoom te ñu ànd ko moom. te yàggal fi mboolem suñu kilifa yëpp rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo jiital ci liggéey bi di Touba ci kanam suñ ci tëddee sëñ Abibulahi mu Cheikh Mamadul Fadal dana mën a yóbbaale ñëpp waaw sëñ Cheikh suñu xel dal na ndax sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal noon ni borom boromam baaxoo jëflanteeg moom mooy démbam ju nekk tayam da koy gàccaal tayam ju nekk tamit ëllëg da koy gàccaal loolu mooy moo moo moo ñu wan suñu xel mu dal waaye nag buñ bëggoon a xam ndax liñ doon wut ndax àggagun nañ ca wala àggagun ca damay wax ne des nañ dese nañu lu bari waaye nag am nañ ci yaakaar ci ne li ñuy wut danañ ko am incha allah magasin bi ñu nekk moom la ñuy tuddee magasin central ndax dañoo xaajoon dëkk bi ay xaaj lu tolloog juróomi xaaj am équipe boo xam dañ leen a sant ñu recensé ñi nga xam ne ñoo féetee côté bët sable bët gànnaar penku bi am euh, équipe buñ sant ñu recensé euh, sowu bi ci ginnaaw lépp nag ci ginnaaw corniche bi euh, li ñu jublu ci magasin li ñu jublu ci recensement boobu mooy ku ci nekk rek fa la gën a jege ñu wutal la fa magasin boo xam ne fa ngay jëlee bu dee ci magasin bii nag ñi fi war a jëlee mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ci li wër corniche bi ñoo dëkk ci biir corniche bi mooy magasin central bi daanaka jamono bii liñ fiy wàcce nii rek ñi ci war a am dana toll ci 800 personnes 840 personnes ci jamono bii comme noonu nga ko waxee tamit liñ liñ jot a recensé ba noppi nga xam ne ñoom am nañ yéene jox leen ñu fàttali leen tamit recensement bi ak bind bi moom jeex na fi mu toll nii ginnaaw buñ leen bindee ba noppi lan lañ leen di jox ci lañ toll ci di ko wuti kon fim mu toll nii kin gën a yittewoo mooy koo xam ne day am lu mën a jàppe ci liggéey bi waaye bu dee koo xam ne nii xëy na dafa bëgg ñu jàppale ko loolu moom am nañ ci lim boo xam ne xaw naa takk comme noonu ko ko waxee léegi rek bu weesoo ñetti junni nit ñi nga xam ne nii bindu nañ ba noppi dese nañu juróom-ñaari daare kaamil yoo xam ne commission sociale bu Touba ci kanam baaxoon na faa dem dese nañu tamit naa Maam Jaara bi nga xam ne nii ñi nga xam ne nii seen i waajur na nekkatu fi wala seen waajur mënu leen a yor nam leen war a yore te loolu ñaanuk sëriñ bi sëñ boo xam ne wal tubasir bi yàlla yataama dawaa man ansihi bi abaahum kulahini ñooñu fa lañ nekk foofu war nañ faa dem ci biir loolu tamit war nañoo dem ci ndogu yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def ngir di ci jàppale askan wi nga xam ne nii xëy na duñ am fu ñu doge ñu di ko defee ci jumaa ja foofa tamit war nañ faa dugal suñu loxo am nañ tamit ab lim boo xam ne ñu bind woon nañ ci ba waaye bi ñuy ñëw dafa fekk ne li ñu waroon bind lim bi ñu doon matal nañ ko ba noppi ñooñu duñ leen wax na leen amu fi waaye dañ leen di bàyyi foofa bu ko defee nag jéem a dox ay jéego bu fekkee ne li ñuy wut am nañ ko ba dépassé ko ñu mën a jël liste booba yokk leen ci at yi yëpp bu ñu xoolee daaw 3000 personnes 3000 kër la ñu waxoon ñetti junniy borom kër waaye mujj nañ dem ba ci 3470 ñetti junniy borom kër ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk loolu wax nga léegi détails yi li ñu doon séddale ci ceeb daaw ëppoon na 161 tonnes toll nii 3000 personnes yi donc boo leen bëggoon a jox dana mat 150 tonnes ci ceeb. suukar moom lu mu néew néew da nga ci am 18 tonnes tàndarma kasaalika xaalis léegi wax nga ne paas rek bu bëgg fekkee nañoo bëgg a jox ku nekk 3000 francs yu mu war a passé 3000 personnes rek 9 millions la kon daal liggéey la bu mag boo xam ne nii eh, ñi ngi ci sant ñi nga xam ne ñoo jot a feeñal seen yéene tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne nii eh, moo ci njëkk taabal tabal loxoom eh, léegi nii rek am na ku ñu ma koo xam ne nii joxe na 30 tonnes ceeb xam naa danañ ci ñëw ci kanam yoo ngir yàlla bëggul sax ko xam aw turam di fàttali ne itam nii ñu ko defee ci biir koor gi buñ demee ba korite gi des ñetti fan wala ñeenti fan danañ wutaat ay xéewal demaat ci suñu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi ku ci nekk ñu dem ba sa kër seet luñ la mën a jàppalee ci korite gi incha allah waaye loolu lépp nag ngi aju ci laaj luñ man def ko fu ñu xam doonul ne dañ koy jël teg ko ci benn loxoom nit muy seet ñu ciy jox wala ñu fi dul jox waaye loolu lépp dugg ci laaj luñ man def ko ñun xam def ko ci ñun xam kon ñi ngi sant bokk taalibe yi nga xam ne nii ñoo ci jot a seen yéene waaye ñi ngi ñaaxaat suñu bokk taalibe yi nga xam ne nii xëy na dikk ñu ñu ñëw ci liggéey bi ngir mën ee jàpp baax a baax waa gën gën gaa néew moom in faut ñu am 160 tonnes 160 tonnes gën gaa néew ndax euh, dana ko sax waaye gën gaa néew bu demee ba mënta ñàkk mënta ñàkk faaw ñu am 160 tonnes yëpp suukar moom gën gaa néew faaw ñu am ci 17 17 tonnes moom gën gaa néew ndax dèjà fi mu toll nii rek li ñuy jéem a wut nii mooy 15 tonnes te dana ko dana ëpp dana ëpp 15 tonnes ndax bu Euh, li may wax nii lépp maa ngi ko jëlee ci liñ defoon daaw kon dana dana ëpp ren incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf sëriñ Mouxtada kon mbokk yi ñoo ko déggandoo de kon ay ca mburit 150 tonnes 160 tonnes 200 tonnes ngir sëriñ Touba loolu de jàpp naa ne yomb da yàlla mbokk yi kenn képp ci talibu sëriñ Bamba yi mën na koo joxe 17 tonnes 20 tonnes suukar ci sëriñ Touba jàpp naa ne kenn képp ci jàmbaru sëriñ Touba yi mën na ko yow mi nga xam ne yàlla dala ma ne gan yow mi nga xam ne denc nga ay tonu ceeb yow mi nga xam ne denc nga dépense weer at bàyyil xel mbokk yi nga xam ne bu saaku ceeb duggee seen kër yàlla commission sociale bu tubaa ca kanam a tax kon kon ay ca murit bu kenn xeeb bu kenn yéem sëriñ tubaa tax ñuy laaj sëriñ tubaa tax ngeen joxe jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yitte kese la mbokk yi jëre ngeen jëfati bi jaayi xayri man